أربعين نك سنو واخي أربعين خينا نيو باري دنيو كو كومبراندر بو باخ موي أربعين موي فك فكيلو بس وير محرم وير بي باسي موي محرم تي وير بوبو لانيو ري دوم يانت محمد صلى الله عليه وسلم امام حسين ak rakkam yi ak doomam ak taalibiyam dem nañu ba ñu toll ci lu mat lu ëpp soixante-dix personnes léegi nag bu ñu leen reyee Karbala dañu dagg bopp yi ñu jël bopp yi noon yi ñu yóbbu ko ci buur boobu bi na bu tudd woon Yazid ñu yóbbu ci pale bi seen bopp yi léegi nag jël nañu bopp yooyu ci jour boobu ñu def ci feet mooy ñu bari fii dañuy wax tamxarit tamxarit jour boobu mooy feet ñi nga xam ne ñoo noonu ñoo nekk ay noonu famille yenent bi ñu rëy waa kër yenent bi dañ ko doon feet kon loolu moo indi tamxarit taajabon bi nga xam ne am na ci suñu dëkk yi waaye bu ñu jëlee bopp yi def seen feet ba pare dafa amoon rakk Imaam Hussein ak doomu imaam Hussein ñu joxaat leen bopp yi bu ñu leen joxaat bopp yi nag comme xam ngeen ne temps boobu déplacement yi du comme léegi xam naa ne ci yoon bi joge Karbala l'actuel Irak joge Damas pour dem ñibbi Madine ñu jaar Karbala fu ñu reyoon waa kër yenentu bi ku nekk euh, Euh, xaw ma nañ ko wax lu koor koor bi fu ñu ko suul ñu indi boppam ñu suulaat ko foofu pour mu compléter ko ñu indi bopp yi dajale ko ak li ci des ci yaram bi mooy événement bi mooy arbaïn loolu nag li ko indi rek mooy imaam Hussein dafa bëggoon euh, taxawal diine lislaam diine yàlla bi diine bi nga xam ne maamam la ñu yónni pour mu taxawal ko kon dafa bëggoon démbale maamam ci loolu yàlla def nag moom imaam Hussein euh, situation bi dafa ñëw boo xam ba nga xam ne il faut mu joxe bakkanam walla mu bàyyi diine lislaam bi mu yàqu imaam Hussein nag mu préféré joxe bakkanam pour diine lislaam bi des léegi nag ñun alhamdulillah yàlla may nañu euh, fekkewuñu temps boobu waaye imaam Hussein taxawoon na mu ne hal min munaasir bu mu jaaxle mu xam ne dinañ ko rey def leen dafa woote mu ne xanaa duñu am ki ñuy dimbale woote boobu nag mu ñun boobu lañuy tontu waaye nan lañ koy tontoo léegi mooy moom joxe na bakkanam pour dundal lislaam te lislaam soo waxee lislaam rek mooy jullit mooy doomu aadama doomu aadama mooy ju euh, parce que euh, diine bi yàlla yónniwu ko ci euh, ci benn ethnie déedéet daf ko yónni ci doomu aadama yépp kon ni imaam Hussein joxe deretam pour dundalal islaam man tamit ma yaakaar ne ñun tamit li ñu war a def mooy ñu joxe suñu deret pour dundal doomu aadama yi. ñun suñu maam luñ ñu jàngal daf ñu wax ne ci àddina bi ñaari façon nit rek moo fi nekk mooy sa frère sa mbokk ci diine walla ton semblable dans la création sa nawle ci mbindeef kon ñëpp da nga war a am même respect ci ñoom kon ñun lu ñuy def ni defuñu ko pour wax ne fii ci senegal communauté bii lañu ko defal du beneen communauté déedéet dañu ko defal sénégalais yi yëpp